bu ne lu ko war. waaw mooy di dagg di participer si Touba si kanam weer bu nekk nga dagg 1000 francs di sëriñ bi tax su ko defee après lépp day gën a baax ndax lépp si Touba la daal maanaam ni la ko mën a waxee 1000 francs yooyu noonu si ñun ñi joom si kenn muy xale bi muy mag bi ku mën di doon rek joomu la ko ah danga ko war a def def googu nag dañ si soññi ñëpp muy man muy keneen ak keneen ku ko daan def nga koy gën di continuer ku ko daawul def tamit. nga si am pëste bu baax a baax di ko def daal maanaam ndax lépp lépp sëriñ bi la daal maanaam. murit bu ne li ko war. dagg ñaar téeméer ngir jëmale Touba sa kanam weer wu ne nañ ko waxee nañ koy jëfe ndax boo ko fi defut def ko ci leneen te ku nekk xam nga ne Touba sa kanam seenub liggéey dafa leer naññi dara lëntu ci moo gën dugal ko ci leneen luy lënt wasalaam. ñii dañoo war di dagg ci Touba sa kanam di joxe ñaar téeméer am na ñoo xam ne dañuy yor mille duñ ko ci def dëkk bi leer na nañ nañuy joxe ñaar téeméer ci Touba sa kanam sa paabee moo koy daggal mille dong la weer wu ne nga jox ko mille franc bëriwu billahi mina seytaani rajim yi bisimilahi rahmaani rahim sant yàlla julli ci sangu sang yi Seydina Mouhamed sant suñu ñaari waajur sant suñu wasila Cheikhul Khadim di leen nuyu baax di leen jaar yéen ñi nga xam ne saa su yéen a baaxoo di jàkkaarloog Waarwi TV ci liggéey am solo yi nga xam ne mi ngi koy def ci dëkk bu sell bii di Touba. Ah, nekk nag bis boo xam ne bis bi dafa am solo nekk fukki fan ak juróom benn ci mois de janvier 2020 fii ci mbaari Madiyana yi képp koo xam ne daa nga fi romb heure bi gis nga ni mu daan lëndëmee ku ne mënoon naa mbëkk sa morom ku ne mënoon naa dajeeg sa morom sax te doo ko xàmmee waaye nag ci liggéey Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul bi nga xam ne ndaw yu sawar yi nga xam ne dañoo jóg rek ngir liggéey Serigne Touba jóg rek ngir liggéey Cheikh Ahmadou Bamba ci dëkkam bu sell bi muy waa Touba ca kanam ñoo jëf-jëf ju rafet ji jëf ju rëy ji nga xam ne wax dëgg yàlla um, jullit yëpp ko rafetlu taaliba yëpp ko rafetlu waa Madiyana tamit ñoo ko rafetlu woon waar ci wàllu sécurité ni mu woon waar ci yeneen a yeneen waaye seen jëf jure ji ak si yenn juréy ji nga xam ne Touba ca kanam am na ko ci dëkk Serigne Touba bi am ko ci liggéeyub Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul bi moo waral Touba ca kanam jëfe nii tey gis ngeen làmp yi ci suba ànd nañoo yéen woon leen ni doon monté gis ngeen tamit ñi ngi fii ci Madiana demoon leen Sam gis nga nan fa fii ci mbaar yi ak seen liggéey bu rëy kon nag Touba ca kanam mënuñu leen fay ndax ña nga ca tali ya ndax tey ji dëgg yàlla ndox mi sonaloon na mbokki taalibe yi yoon yi sonaloon na mbokk taalibe yi waaye ku dem ca saxaw gee gis nañ ko jëfee ak yeneen ak mbedd ndax la nga mën a tudd ak la nga mënta tudd lépp tubaa ca kanam jëf na ko kon nag dañuy ñaanal tubaa ca kanam yàlla jàppale leen ba li nga xam ne mébét nañ ko dëkk Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul bi yàlla may leen kattan ak man akuk tal ban man koo def kon nu ñuy jaajëfa Serigne Mountakha Bachir Mbacké Mbàkke ndax sëriñ Muntaxa Basiir mbaaxam ak yiwam ak bëgg taalibe yi moo tax yàlla nag euh, di ko def defal lu ne nag di ko faye lu ne tubaa ca kanam nan ne ca kanam rek liggéey sëriñ Touba mooy lu ñu war ndax mu di jëfe ndigal te bàyyi te rek kon ngeen topp moo ñu dugg ci askan wi ba xam naka lan gisee liggéey bu rëy bi tubaa ca kanam def maa leen nuyu ziare leen euh, ñu fekk fi tubaa ca kanam jëf ju rëy jin jëf yéen taximaan ne naka ngeen ko gise waaw sant julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw buñ sante yàlla xam ni itam Serigne Touba moom kenn du moom te jëf ji moom am na fu mu tàmbalee waaye amul fu yem ndax kuy liggéeyal Serigne Touba euh, tàmbale ko ci lu mel nii ñëpp participer ci ngay def liggéey bu am solo bi moom sant yàlla sant yoon bi sant Serigne Touba la bu baax a baax te liggéey bi itam ñëpp rafet dañ ko nekk di ñaan taalu bi yëpp ñu def ci seenu ñàkk xam ne liñ ciy def réerul parce que ñu ngi gis euh, résultat bi. vraiment am nañ ci fierté trop santé ko nag Serigne Touba bu baax a baax a baax jëf ji daal gis nañ ko bu baax dëkk baa ngi leer mbedd yi ñu ngi koy sëkk ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu bari ñu mel teg baaraam di ñaan daal liggéey bi nag ñëpp jàpp dugal ci seen loxo. jërëjëf murit bu ne lu ko war. murit bu ne war na weer wu ne bu dee ñaata mét ci la dooleem tool mu def ko ci su ko na ci def lu ko ëpp million milliard lu taalu bi am man ko rek war na ko ci def ndax liggéeyal Serigne Touba te liggéeyal Serigne Touba amul fu ndax Serigne Touba li mu doon liggéey bi mu koy liggéey amoon na tàmbali waaye amul fu yem kon jëf ji moom lu waay man dërëm ba milliard bul xeeb bul naw liggéeyal sëñ Tuubaa la te musum yam <coughs> papa fii da naan euh, gis ñàkk sécurité bi Madiyana koo ne waan wax mbaari Madiyana ñëpp tiit tey nga gis ni Touba ca kanam jëf-jëf ju ji ci Madiyana gi. waaw ah, bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp Euh, te di leen ziara te di rafetlu seen teewaay bi euh, lii nag moom euh, bettu bettu ñu bett nañu ndax Madiyana lëndëmoon na doy na waar waaye biig bi nga xamee seen làmp yi tàkk na ñëpp dañoo jàppaat ne alhamdulilahi rabbil alamina julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ah, di sant nag ñu ko fi def ndax lu waaye wax na ne ñu ko ci war wax di xamul na géwél na ko gërëme coy kon nag nañ ko gërëme Touba ca kanam moom mi nga xam si moo fi def lamp yi Euh, comme moo ko fi def nag euh, ci moom la ñuy njëkkee sant di ko gërëm tey ñaan di ñaax nit ñi kenn ku nekk 1000 francs yi nga jonoon def boo ma nee milliard na ko def boo ma nee junni milliard na nga ko ci def foofu lan xam ne ci la ñuy commencé euh, te xam na daal lii daal nañ ci sant yàlla te julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa te xam na daal lu leer rek a leer ndax li rek dafa doy waar ndax fi doon boo saanee poussé sax ñu ñu for ko kon loolu sécurité la ci ñëpp rawatina ñun taximaan yi nga si defee nekk ndax leeraay gi ñun daf ñuy arrangé gi mooy ki naa day jógee fële sax lëndamaa ngi ragal tax mu agsi mais bu leeree nii dana mën a dox ak tànkam ba ñëw ci garage bi jël taxi na mu ko waree ñu yóbbu ko ci ci ci jàmm ak salaam mu dem këram ci jàmm ak salaam kon loolu ñu ngi ci sant ñëpp euh, di ci gërëm ñëpp ak yéen ñi nga yene ñëw fii pour lancer message boobu ñu ngi leen sant di leen gërëm wasalaam. ah ñu sant yàlla di leen sant rek ndox dëgg yàlla mbégte rek lañ ci am wax dëgg yàlla bi ñu fi nekkee léegi tamit liñ gis moom lépp sedd na suñu xol Touba ca kanam ca kanam rek ñu ngi leen di ñaanal yàlla yokk leen rek. ñu ngi defal lamp mu tiim la leer naa ñu. wax dëgg yàlla tubaarkàlla ñun daal fi ñu wax dëgg yàlla ñu ngi sant rek ñu ngi sant baax na neex na sant nañ yàlla sant leen wax dëgg yàlla Pastef rek lañu xam ci ñoom. ñuy di la fekk la fii ci maari Madiyaana yi loo ñu mën a wax ci Touba ca kanam ci lamp yi ñu fi def. salaamaaleykum wa rahmatullah kon noonu la ñuy leen siyaar bu baax di leen ndokkeel kanam daal lañ képp ku dul war nga cee bokk ndax liggéey Sëriñ Tuubaa bu wér na amul benn caaxaan loo xam ne la Sëriñ Seex waxoon Sëriñ Seex Amadu Gaynde Fatma waxoon rek di leen laaj luñ xam luñ man di ko def fuñ xam Tuubaa ci kanam li muy laaj saa boo xëyee teg sa bët ku di wala ku di jullit war ngaa fexe ba di ci dox ndax day loo xam ne dañ cee teg bët ci di cee njariñ la loo xam ne nii ñëpp a ciy jariñ mën naa ne mala yi sax dañ ciy jariñ kon ñun bu dee ay murit lañ te dëggal kenn ku ne war na cee def aw ñaqam ndax mooy liggéey Sëriñ Tuubaa te liggéey sëriñ Tuubaa bokk na ci li nga xam ne nii mooy jàllale ab jullit ëllëg ndax sëriñ bi da ne ku ma liggéeyal moom na la leer sa pay mi ngi ci man te nag jaamu yàlla balaa mën a ma dugg ci ni ma ko gisee man fi ñu toll nii sëriñ Tuubaa mi am ngërëmal yàlla ak yonente bi sëriñ Tuubaa ak yonente bi Muhammad sallallahu ku ko liggéeyal da mën a làq yaari ngërëm yooyu kon daal ñun murid yi nan fas yéene liggéeyal sëriñ Tuubaa ndax nu am ngërëmal yàlla dagg rosi bi maanaam ci 1000 francs weer dee kenn ko ne war na la moom bu dee murit bu dee dëgg la ci yow war na la ndax WhatsApp bi rek liñ ci liñ ciy ñàkk war nañ cee mën a dugal loo xam ne nii suñu ëllëg suñu bàmmeel lu ñuy jariñ ndax man mu gis naa ne daal Touba ci kanam daal liggéey la bu lay xaar ñamal xiyaam moom ëllëg bilaay yaay ci lëndëm gi xaw na noo dee yaay ma ñëw fekk fi Touba ci kanam def ci lii loolu ci sant yàlla bu baax di sant sëriñ Touba hmm. di sant nag ñii nga xam ne ñoo fabriqueur yi ba commencé ak ba liggéey bu baax ñu ne tàmbali ko ñoo hmm. ngi leen di ñaanal yàlla na ko yàlla yeggale ak jàmm yàlla yokk fanu yokk sutura yokk wér gi nga xam ne def nañ lu baax ci dëkk bi ndax nun da xam na noo dee lëndëm bu masaan ñibbi duñ xam fu ñuy jaar buñ fi suñu portable la ñu yor di taal ak di jënd suñu di taal léegi nag defatu na dëkk da doon ragal dañ daan teel a ñibbi léegi nag bi dañ fee tëdd ba bani ñibbi ban yeggee suñu waa kër fekk tëdd ñun lu leen bàyyi foofu nañu ko lampe yi leeree rek ñoo dafa bàyyi woon bëgg sëriñ 1000 francs weeru de waaw. waaw ah, gis ngeen nekk fi nag. waaw ah, timis rek waaw rek ñu daan ji bi ndax lu ndëngu metti rek waaye fi mu dañoo sant yàlla bu baax di sant Serigne Touba di ñaanal Touba ca kanam nag ca kaw rek lépp luñ lépp luñ liggéeyal sëñ Touba rek yàlla na ci yàlla saabaram ñu def ca kaw ca rek luñ bëgg rek da leen ko yàlla saabaram ñu defal gis nga ko ni macha allah macha allah gis nga ko ñu ngi tànn dem ci do bëccëg lañ daan tànn dem ah. tey ji moom gis nga ko tubaarkaal bu ñu neexee tànn dem waaye weeru dee nag dagg dagg carte rek dee mille francs kay moom li ko war xanaa sant sëñ rek di di fas yéene ne ci ndigal rek Touba ca kanam Touba ca kanam ca kaw ca kanam. ci kaw ci kaw weer wu ne ñaata weer wu dee 1000F la ñuy dagg incha allah. jërëjëf ñun yàlla man ñu kàttan ak wér ak bi mën a liggéey rek. liggéeyal sëñ Touba gis nga ko ni maa ngi gis nii macha allah. waaw tubaarkalla macha allah ca kaw ca kanam rek macha allah. moom li ma si xam mooy ñu ngi liggéey daal te dëkk bi gis naa ci dëkk bi benn affaire gis naa ne ñu ngi jubal nekk nañ ci benn euh, mbooloo boo xamante ni. lépp loo xamante ni sëñ bi bëgg na ko ci dëkk bi gëm naa bu ko tegee seen loxo dinañ ko teg ci yoon parce que man yaakaar naa damay faral di ñëw ci dëkk bi fi laa dëkk nag waaye damay faral di ñëw ko a dem waaye gis naa ne temps yi sûrement côté mbaar yi moom gis naa ne leer na naa ñu daal te xam naa tamit problème ndox bi gars yi doon kaas tamit aussi bu ko gars yi tegee seen kanam tamit xam naa ne ci jox ay jéego yu bari kon murid bu ñu lu ñu war. nekk bon ku nekk affaire yi jàppal ma jàpp la rek par exemple te jii ko am sa 1000 francs nga def ko ci parce que état moom du développé kenn benn dëkkam ku ci nekk yaay euh, dëkk ña fa nekk ñoo koy développé mais pas état état dimbalul kenn état da lay fekk ci jàppale la nga dem waaw. jërëjëf fii ci Maria loo ñu mën a wax ah, fayee nuyoo bi ziar leen di wax ni Touba ca na moom vraiment li muy def ci rek bi moom ñëpp ci war a roy mu nekk loo xam ñëpp teg nañ ci seen bët. loo xamante ni ñëpp ñëpp dama naan Touba Ca Kanam moom dafa war a mel ni comme Senelec ñuy fay facture léegi nag dañu ko yombal 1000 francs la ñu wax waaye ma damaa préféré ku ci nekk rek boo amee bul yem ci 1000 francs yi nga koy yokk ndax fii moom manqué woon na éclairage su Madiyana gi ñuy liggéeyee su su si ginnaaw mën a woon a génn fii guddi mais léegi ni macha allah fépp leer na ci lépp nag muy ndox muy courant muy lépp ñu ngi fi jàppale. murit bu ne li koy war. <laughs> murit bu ne li ko war muy mu jàppee ci nu ci tubaat Ca Kanam muy ci doole muy ci lépp suuf nag li nga xam moom la ñu teg te bariwut wu deux mille francs te loolu yaakaar naa ku nekk war nga ko mën a jaayante ba jaayante lu ko raw ndax jaar nañ ko ëpp man daa gis naa ci bu baax a baax. jërëjëf guddi gi da ngeen daan ragale ñëpp da ngeen di wóññi jël su ne léegi da ngeen jël tax seen. Eh, eh, yomb na lool sax lool <laughs> <laughs> léegi daal ñeme nañ fépp. ñu sant gee doy waar lool. yéeme na ak <laughs> jaxate jaxate ak jaana jaana yi. déedéet jaxate jaxate yi moom. Ah, mbokk yi ba tey yéen a ngi ci Waarwi TV yéen ñu doon topp duggal nañ leen ci Madiyana won nañ leen jaaykat yi ak ñi nga xam ne bu waxtu wi jotee dañ daan liggéey wàcc ñibbi seen kër tey wax dëgg yàlla diggante bi ku fi daan jaar da ngay tiit waaye tey ku fi jaay sa xel dafay dal li ko waral nag mooy Touba ca kanam kon nag ñu leen di jëfal bu baax a baax. ci liggéey bu sell bi nga xam ne def nañ ko boole koo yéene ndax yéene kat soo ko dee def jëf ju nga koy jëfee moo war a ñu jëf jëf ju ji di sant di gërëm suñ kilifa yi nga xam ne ñoo ko jiite ndax Touba ca kanam wax dëgg yàlla Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul sëtam yi fi nekk ñu ngi koy doxal te di ko dundee kon nag li ñu war ñun murit bu ne weeru dee wu ne ñu dagg 1000 francs ca Touba ca kanam ndax lu ci waay def sa bopp nga ko defal kon nag fii la Waarwi TV di leen tàggu dinañ dikkaat ak yéen ci beneen liggéey boo xam ne Touba ca liggéey nañ ko ci barke Cheikhul Khadim di ñaana Touba ca kanam ca kanam ca kanam ci dooree Serigne Touba weeru ne da leen dagg ñaar téeméer jafewut moo gën jënde ko connexion